ndeysaan ndeysaan xale yaa ngay lewaatoo bi mooy premier combat de la soirée combat bi moo dox ci kan ak kan programme yoroo beneen. Ardo Junior euh, Ndaw. Ardo Junior ak Daabu Ndaw. Ardo Junior moo ñu won kanam ni moo gàtt ki voilà moo féete càmmoñ moo féete ndijoor waaw. dëgg la mbokk yi Ardo bu Ndaw ak Daabu Junior. Ardo bu ndaw nox Ardo ndaw ak Da Junior Ardo moo la féetee càmmoñ paawu CNG bi laa doon waxal gis nga nee na ma da ngaa war a jóge fii booy yow da ngay ruube fu la ngay dugg <laughs> waaye samay papa la ñu Ardo bu ndaw ak Da Ardo nga jàkkaar lool daa moo la wan ginnaaw ndeysaan mbokki premier combat de la soirée daa daw na jëli ko Ardo dóor na ma ngay dóor ci suuf daawa ngay fayu fu ñuy mujj Ardo daa daa siñoor Ardo daa siñoor Ardo daa siñoor Ardo daa siñoor Ardo ndeysaan ñu ngi noonu daa siñoor Ardo ma ngi koy bëgg a bañ na daa taxabal na ardo bañ daa siñoor ardo daa siñoor ardo daa siñoor ardo ndeysaan ñu ngi noonu daa siñoor ardo ndeysaan ñu nga noonu jàppante ñoom ñaar da koo sol Ardo ndaysaan ña nga noonu Da Junior Ardo ndaysaan mbokk yi moment bi ñaari xale yi di dugg di bëre ci la di waaj a dugg si ci arène nationale <laughs> ay bis looy bañ mu yegg si bul ko wutal bis looy bañ mu yegg si bul ko àbbal bés ndeysaan Ardo Junior ak daa bu ndaw Ardo ak daa wër na ko ndomba daa wër na ndomba Ardo mu koy forcé da koy daan Eh, daan na ko daan na daan na ko wala déet daanaat na ko ay waay daa daan na ardo xale bi daan na waay eh, daa na daa daan na ardo Ibrahima ñi ñoo ind ak